Nafi Diop euh, ñu ngi lay nuyu Euh, maa ngi leen di fay. am nañu mbégte dalal la ci matinalu tay bi ci réew Rewmi FM yow yaa gagné prix de la meilleure femme inventeur ci salon africain de l'invention et de l'innovation technologique ñu amoon loon ko ci euh, fukki fan ak juróom jàpp fukk ak juróom-ñaar ci weer wi euh, ci Brazzaville li la may ndam loolu nag mooy sa machine bi di dépulpeuse di tax ñu ngi am mbégte mu rëy dalal tey ci waxtaan wi alors bëggoon na fi nga wax ñu sa machine boobu nan nga ko defaree ak. nan nga jàngatee ndam li nga xam ne indil na la ka waaw maa ngi leen di man mbégte la si man tamit eh, maa ngi si invitation bi alors machine bi euh, nu ñu ko defaree dañu dañu jàngat ne déjà am nañu jafe-jafe pour mun a soppali ditax bi parce que ditax bi fruit meññeef la boo xamante ne euh, sénégalais yi bëgg nañ ko te am na valeur ajoutée bu ci nekk mais pour defar ko dafay metti ndax il faut nga dëbb ko nga def ci ndox nga segg ko balaa ngay am li nga bëgg donc ñun bi ñu jàngatee loolu ñu xool euh, déjà début bi ni ñu koy defaree ak nu ñuy defaree ñu amoon tamit fële fi may liggéeyee ITEA institut de technologie alimentaire. chercheur euh, waa chercheur laa foofu ah. foofu laay foofu laay liggéeyee euh, ñu am benn machine boo xamante ne moom li liggéeyam mooy xolli pomme de terre donc ñun machine boobu. foofu lañ la foofu lañ tàmm di liggéey di tax bi machine bi xolli pomme de terre dañ ko doon adapté bi ma ñëwee gis ne noonu la ñuy def ma xool étape yi ak ñun euh, li ñu tàmm dëddee ci la ne nañu xool nan la ñuy def ba nga xamante ne dañuy boole liggéey bi yépp ci benn machine mm. donc loolu moo indi défileteuse bi te dama ci liggéey lëkkaloo si tamit ak euh, professeur Abdoulaye Seck bu Maurice Delafosse moo ma jàppale ba mu mën a fabriquer Euh, machine bi même professeur de fabrication ma tamit la. Mhm. profiter di ko remercier di ko rendre hommage tamit. d'accord alors euh, lan moo tax nga tànn di tax euh, mi yeneen fruits locaux yi nga xam ne am nañu Sénégal. waaw dama tànn di tax bi parce que man en tant que gëstukat di liggéey ci wàllu lépp loo xamante ne dañ ko war a def pour suñu fruits yi gën leen mën a transformer dañu seetlu ne que di tax bi dafa am lu koy gàllankoor pour mu gën a sukkaliku. mooy le fait mu am ritax boo xamante ne euh, kii boo ko lekkee mun nga ci mun nga ci feebar ba ba ñàkk ci sa bakkan hmm. ndax dafa am poison léegi bi ñu seetluwee ne tax boobu tamit kenn mënu ko ràññee ci bët dañuy xool rek ndax ndax dañuy xool rek ndax animaux yi lekk nañ ko wala lekkuñu ko ci laa ne non non ñun vraiment en tant que africain sénégalais war nañu mun a gëstu. en tant que nit sax ay maladie ñu tànnal waaw. <laughs> voilà en tant que nit war nañu mun a gëstu ba xam quand même ñun lan moo war a daf ma metti woon daal vraiment ci laa def sama thèse ci ci ditax bi. donc pour ñu mun ko valoriser ba pare xool yan solution la ñu mun a am pour bu ñu amee ditax boo xam ne baaxul. ñu munu ko ñu mënu ko ràññee loolu moo indi ma liggéey ci ditax bi. kon su ma la déggee ditax bu bon boobu nit yi mun nañ ko lekk tey. waaw bu fekkee lu ñu mënul ràññee la ci bët sa veut dire ku nekk mun na ci yem. mënuñu ko mun waaw mënuñu ko mënuñu ko ràññee ci bët. mais généralement cas yi cas yi am day fekk ñi nga xamante ne xamuñu xamuñu ditax bi par exemple dem dem zone boo xamante ne dafa am ditax. ñu gis di tax yu bëri foofu. ñu hmm. foogoon ne baax na ñu lekk ko. d'accord mais mais mais c'est c'est yi ñuy indi par exemple di ko jaay ci euh, zone urbaine yi yooyu mun na ci bañ a nekk. non non non yooyu du ci nekk yooyu du ci nekk. parce que ñi koy ñi koy witti peut-être dañ ko xam. dañuy xam waaw collecte bi moom c'est vraiment collecte bi dañ ko organiser ba de telle sorte que yu baax yi rek la ñuy jël mais scientifiquement pour un scientifique dafa doon kii daal sama xel la fekk ñuy basé wu lekk si loolu ndax wóorul. Mhm. foog ñu am méthode pour distinguer ko. parce que tey boo buggee exporté dinañ la laaj benn certificat ne la wan ma nekk di tax bi may exporter amul amul dara lu ci nekk. Mhm. bu boobaa aussi dinañ mun a indil suñu ay argument pour na ne effectivement euh, kii na. d'accord alors est-ce que defaroon machine bi yomb na. noo defaroon machine bi yombul woon. yombul woon mais alhamdulilah rabil alamin ndax euh, yàlla daf ma booleeg ci sama durant sama yoon bi yëpp yàlla dafa teg daf ma boole ak ay nit yu baax ñoo xamante ne vraiment ñoo ma ci jàppale daf ci seen doole daf ci seen alal ba lii tey mun a nekk. waaw amoon na benn période sax xawoon naa. <laughs> découragé parce que xam nga boo nekkee jigéen. nekk mm-hmm. dans le monde euh, de la recherche c'est pas siiwul daal. Mm-hmm. waaw di toll foo xamante ne di nga di nga xaw a découragé mais euh, alhamdulilah vraiment sama famille sama borom kër. ñoo ma ne non non non te eh, il faut pas abandonner te alhamdulilah rabbil d'accord si si ñaata temps nga ko defar machine bi. alors mun naa wax ne machine bi 2011 laa déposé woon euh, laa am laa amoon brevet bi. Mm -hmm. 2011 laa déposé laa amoon brevet bi euh, mooy def ay essai ay essai ay essai ba 2017 si laay door a am nag prototype bi nga xamante ne mun naa ne version bi vraiment léegi opérationnel la mhm. mun nañ ko dugal si marché bi. am ci ay résultats. d'accord mhm. alors yow à travers machine bi da nga bëgg xeex euh, ñàkkum xëy bi di chômage bi. Euh, naka nga yaakaaree ni machine bi mën na saafara euh, góom boobu nga xam ni saa yu ñu yeewoo muy gën a law. waaw yaakaar naa ne machine bi mën na ko mun na ko saafara. parce que mhm. machine bi boo ko amee mun nga ci am au moins six emplois ñuy recruter six emplois direct man par exemple bi may jël mooy man sama cas personnel. man machine bi dama machine bi ma am. Hmm. dama ko jox sama famille. ba instant yi nii ñoom am nañ ci seen am na unité bu ñu entre bu ñu bu ñu am ñoom. sama rakk yi sama ñaari rakk yu jigéen ñoo ci liggéey sama frère ak euh, sama papa ak sama yaay nga xam dañ nekk retraite ñoom ñoo ciy liggéey ci machine bi. donc ñu ngi ciy liggéey di defar ay pulpe te man aussi ñoom liggéey bi ciy liggéey man daf may permettre aussi ma ma ma gën a am ay données. pour mun a gën a améliorer defaraat beneen machine bu gën bii parce que xam nga booy dugal machine ci marché bi il faut nga am un retour ci hmm. utilisateur yi ah. pour mun a améliorer performance yi dinañ la ne problème bi lii la am hmm. lii lii la am de ce fait yooyu yëpp yow da koy jël te comme nekkul ci industriel yow doo mun a am retour boobu hmm. te comme gëstu dafa am lu muy laaj ci alal ak temps donc euh, daf may permettre anan assi ma ma gën a améliorer gëstu bi may def alors wax nga sànq ne defar ko yombul woon euh, ku nekk xam na ne aussi recherche dafa ànd ak euh, moyen mu di est-ce que état bu Sénégal tey mi ngi def loxoom bu baax a baax si wàllu recherche surtout ITEA bi nga nekk. waaw mun naa wax ne état bi mu ngi li muy financé ci recherche bi en tout cas doyul honnêtement hmm. doyul parce que li muy financé ci recherche bi ci ci salaire yi lay dem mun mooy li ma mën a tuddee noonu alors que recherche du loolu rek vraiment bëgg nañ état bi mu gëstu ñu ñun ITA parce que mu ngi def liggéey bu am solo pour dimbale suñu ko surtout appel bi président de la République def mhm. pour consommer local bi loolu mënuñu ko def te boolewuñu ci ITA te plateau technique bi mooy suñu problème ndax tey boo buggee liggéey il faut nga am jumtukaay yooyu liggéeyee mhm. jumtukaay yeg yu nekk de pointe parce que nekkatuñu dans un monde fermé dañu nekk ak suñu yeneen moroom yoo xam ne ay gëstukat lañu ñu nekk ci yeneen dëkk Afrique yi nekk ci yeneen dëkk Europe yi donc dañu war a nekk au même niveau pour mun a pour mun a def loolu donc man loolu mooy sama sama sama cri du cœur. Hmm. na état Sénégal euh, relever le plateau technique de l'ITEA pour ñu euh, renouveler équipement yi atelier yi ak laboratoire yi fa nekk. pour ñu gën a mun a jouer suñu rôle. Hmm. alors euh, tey euh, bu weesoo chômage bi di ñàkkum xëy bi beneen euh, mbir tamit bu sonal àddina sonal Afrique mooy immigration clandestine ñiy jël mbëkk mi ban jàngat nga def ci loolu ak ni mu jugaatee jamono yi. waaw loolu loolu lu ñuy métitlu la waaye tamit ñi koy def dama yaakaar ne c'est dañuy am yaakaar ne fi ñuy jëm dañ fay am lu gën mais loolu yëpp li ko indi mooy ndóol bi ak ñàkk xëy bi. Mhm. te ñàkk xëy bi mun nañ ko def si gox-goxaan yi la ñu war a euh, sanc ay liggéey ay bërëbu liggéeyukaay pour pour ndaw yi mën a toog foofu liggéey ba pare valeur ajoutée bi des fa donc genre dépulpeuse bi mun nga ko installer ci zone yi nga xamante ne par exemple di tax ñun bëri nañ fa da dem Saloum île du Saloum dem Casamance yenn euh, village yi da ngay gis ne ay àll àll di tax moom moo fa nekk donc foofu mun nga fa sanc ay machines di ko liggéey di ko soppali comme comme comme ni ngay comme ni ngay demee tey di wal sa dugub. ci mm-hmm. ci ci marché bi di fay. mais loolu yëpp genre genre système yooyu yëpp schéma yooyu yëpp mun nañ ko mun nañ ko teg. Mm-hmm. de ce fait di nga am impact ci ci environnement bi ndax fruit yi doo ko génneeti dina des foofu di nga ko mun a saxal te tey war nañu mun a dem sax ba am ay toolu di tax comme ni ñu amee ay toolu mango. Mm-hmm. loolu yëpp day day day day day sukkali day sukkali réew. mooy développement à la base ba pare nga créer une valeur ajoutée locale mooy tax nit ki da war a def fi mu nekk mu neex ba ba du xalaat ne dem au contraire nit yi ñoo war a jóge Dakar di dem léegi ci village yi. Mhm. Mhm. d' accord alors euh, ci wàllu recherche nga yëngu ci wàllu ñam est ce que mun nga ñu wax euh, ci njëriñal di tax ci yaramu doomu aadama. waaw di tax bi am na njëriñ lool surtout instant yi ñuy wax ne nit yi dañoo xaw a sonn. xaw a mhm. am grippe ndax booy xool ci ci àdduna bi ci li ñu gisagum bokk ci résultat yi mooy ñetteelu meññeef bu ëpp vitamine C ci ci ci ci ci fruit yi. moom di tax. di tax bi waaw boo jëlee benn di tax bi rek cent grammes yi rek am nga lu ëpp un gramme de euh, pour cent grammes boo demee Casamance ay kabiline deux di tax yi nekk foofu mu ngi am ay deux mille deux cent milligrammes de de vitamine C par cent grammes de prix. xam nga loolu tey ku ko am tey warul mun a dem da day jënd garab bu ay vitamine C. ci yenn bërëb ñuy jaayee garab xam nga mhm. yenn wul maanaam. Mhm. waaw te ñu ngi naan nañu jëfandikoo fruits ak légumes par jour. Mhm. mais fruits ak légumes euh, di tax fruit la màdd fruit la buy siddeem ul mais ñun bu ñu nee fruit rek il faut ñu jënd il faut ñu jëndam jënd pomme. wala ñu dem jënd banaan banaan pomme orange. yooyu lañ xam banaan pomme orange alors voilà <laughs> alors que ñun suñu suñu meññee fi ñu am tey man bu ma jëndee ci maire bi jaay table sama buntu kër bu ma jëndee ci moom benn takk buy par exemple mais takk buy boobu noonu maire bi da ciy am mhm. ki indi buy bi da ciy am mhm. mbu ki jaay ki jaay mbuus bi maire bi da ciy am transporteur bi da ciy am te loolu yëpp fii lay def donc man loolu laay invité sama mbokk sénégalais yi mhm. nañu gën a fulaal ñun ñun ñuy meññeef parce que buñ ko deful ñeneen ñi ñuy ñëw def ko en notre place ñëwaat soppali jaayaat ni ko mu gën a cher jël valeur ajoutée bi yóbbu ko seen dëkk mhm. Mhm. dëgg la jërëjëf Nafi Diop amoon nañu mbégte lool dalal ci matinalu tey bi waxtaane surtout euh, ce prix bi nga xam ne gagné nga ko euh, ca Brazzaville euh, ci salon bi nga xam ne moom lañ fa doon amal ngay kon ki ñu sargal ci jigéen ndax machine bi nga créé mu di dépulpeuse di tax maanaam day wal di tax bi soppar ñi ko ba lépp loo xam ne meññeef la ci ñu mën caa jot ñu ngi lay gërëm bu baax. waa kay maa leen di fay.